Assalamu alaikum rahmatullah. Madame le ministre, maire Zahra la marraine, Madame Nia, maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ma sœur Ndeye Maguette di nuyu képp ku fi teew waaye nuyu particulièrement xale yi maa ngi kontaan bu baax tey teew fi ci invitation sama sœur sama xarit sama collègue quand je dis sama sœur c'est vraiment ma sœur parce que ñoo bokk baay suñu jur yi la woon defe naa génn àdduna moo leen séparé kon ñi ngi ñaan suñu waajur boobu yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam ah di kontaan bu baax teew fi nag madame la ministre ndax action yu mel nii ñun dañ ciy sawar a teg suñuy tànk action yu jëm ci population bi rawatina mu jëm ci xale yi te xale moomin la lu ci waay def doo ko rëccu nañu seetlu ren jii déwén incha allah di nga xam ni def ci xale rek mu am solo maa ngi leen félicité ndax li nga def yombul macha allah dajale autant d' enfants ni da nga leen di récompenser da nga leen di bégal loolu ku ko def def doo como kon maa ngi lay félicité bu baax di wax rek ni xale yi. bu ngeen toogee fii tey seen mérite la ndax mérite nañu récompenser madame le ministre dëgg bi ma ñëwee loolu laa ko njëkk a laaj waaye dama leen di lancer défi wax leen ni déwén dañuy def concurrence ak xale yu géejawaay ñu xool waa Sicap ak waa géejawaay ñoom ñooy gagné. incha allah déwén dinañ ko gën a organiser waat mu gën a mag. ndax action yu mel nii day gën di am doole gën di am jëmm di wax rek waa Sicap dëgg la tey feete xale yi moo ñu fi indi waaye mënuñu fi ñëw nag te waxuñu ci lu ñu jëm muy élection yi élection du ay caaxaan mairie dafa nekk lu am solo dafa nekk lu ñuy wax compétence transférée bu état kon nag ki nga xamante ni moo fi toog mooy daanaka représenté état fii kon bu ñu ko caaxaanee te dama leen di wax ni tamit ñam leen loxo jigéen ñi jigéen moo am xolu def duri jigéen moo am xolu yërëm borom kër jigéen moo am xolu defar ba mu baax ndax bu ñuy wax defar ba mu baax jigéen ñi nañ ko ñoo ko méngoo jigéen moo am xolu bale quartier bale ay koñ moo xam am xolu aménager moo am xolu jàppale xale yi ci seen yu njàng kon ñam leen loxo jigéen yi fii ci Sicap nag suñu xel dal na fi ndax macha allah tête de liste bi jigéen la proportionnel jigéen la kon loolu dañu ci kontaan bu baax a baax a baax di wax nii rek li ma waxoon sànq élection du ay caaxaan nañu jël kàddu yi jël suñuy voix dénk ko ñi nga xamante ni ëllëg dinañ mën a liggéeyal askan bi te jàpp naa ni fii ci Ndakaaru SICAP dio ab Ablaye Diouf Sarr ak Zahra Iyane Thiam moo mën a liggéeyal askan bi kon confier leen seen i voix maa ngi gërëm ñëpp duma guddal di souhaiter une très bonne fête aux enfants waaye mag ñi di ñaan yàlla déwén fekkaat ñu fi ñu defaat fête yu gën a ngande madame la ministre maa ngi lay féliciter bu baax di la encourager di la wax ni incha allah on se donne rendez le 23 janvier incha allah ñu ne vive Zahra Iyane Thiam maire Sicap